mouvement euh, liberté MLS la solution moom la ñu fësalee amal jotaay ko xam waxtu bi tam daañu waxtaan li nga xam ni ñu ngi jëm ci li nga xam ne moo di ci élection législative 2024 yi duñ ci sori dañ koy daal di jox kàddu gi mu nuyoo bu ko defee rek ñu ànd ak moom tontu ak laaj Cheikh Baye Ndiaye ñu ngi leen nuyu beneen yoon di la wax salaamualeykum. aawuzu billahi min alcheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani xawli ginnaaw bu ñu sante yàlla ñoo ngi julli si yonantu bi sallallahu taala alayhi wa di la nuyu yow muntaxa di nuyu sa mbokk yi nga xamante ni yaa ngi ànd ak ñoom ci fii di jàmm ji info waaye gannaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi nuyu askanu Sénégal di leen nuyu ci nuyoo bi gën ci nuyoo muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu hmm. jërëjëf Cheikh Baye Ndiaye yu am solo yooyu tabarkàlla itam lay santaat bu baax a baax a baax euh, Cheikh Baye mu mel ni itam gis nañu mouvement liberté MLS la solution bëggoon nañu tuuti nga tënkal ñu euh, lu wara a li ni mel ak mouvement bi lan moo ko tax a sant yàlla rek mouvement bi li ko tax a jóg ay ñeent at ci gannaaw. ginnaaw bu ñu yàlla boole ay nit di ay mbokk taalibe ñu ngi ciy liggéey ku ñu xam dëgg-dëgg dag ñu xam saay su nekk ci génn di waxtaan ci li nga xamante ni moo jëmale senegal kanam bu mbir xewee danañ ci génn àddu si wax sunu xelaat su gouvernement bi doxalee noo xamante ni waru kaa doxalee danañ ci génn jox leen ay conseil ne leen nii ngeen ko war a defee wala waroo leen ko defee nii su opposition bi génnee daf loo xamante ni waru koo daf danañ génn kan ne leen lii ak li ngeen war a daf waroo leen def lii kon ci gannaaw loolu nañ ko tàmm di ko defee saay su nekk mbokk taalibe ñu waxante sunu biir waxtaan ñu ne kat ah est que duñ créer benn mouvement ci biir daayira bi ma ne leen jox ngeen idée bu baax ndaxte dafa am benn bët bu ñenn ñi Sénégal di xoolee nitu daara bi mooy ne nitu daara bi dafa war a dem toog sa jumaa ja wala ci daara alxuraan bi toog si si jaadaam téye kurusam te man mosuma gëm loolu ci àdduna sama sëriñ sama maam sama turandoo mosta gëm loolu Cheikh Ibrahim ñi nga xamante ni suñu référence lañ ci politique di yonantu bi sallallahu taala alayhi wa sallam nga xam ne kum nekk sa référence ci politique yow am nga référence gu mat référence ku gis lislaam su taxutoon politique bu sell ak bu set tey ñun ñii duñ ci jotee bay ñam ci teraanga lislaam gi ndax ku nekk ci ñun rek fierté nga wala fier nga ci juddu gi nga juddu doon jullit kon loolu dëgg-dëgg su taxutoon yonantu bi politique bu mu teg ci xazawaat yim mu def ci rasail yam doon bind diggante état ak état islamique ci fal gi nga xamante ne dana ko doom fal umara mooy amirul muminini ñii mu jël leen yóbbu Égypte ñii mu jël yóbbu Cham ñii mu jël yóbbu Afrique ñii mu jël nangam ak nangam la kon loolu politique la te xam-xam la kon yonent bi moo di suñu référence bañ ma waxee loolu kat ma ne lan li ngeen xelaat ni dëgg nekkoon na sama xelaat te man sax sama turandoo jox na ma mission ne ma kat jox naa leen ndigal lépp loo gis luy doxal ab société nga toog nga dugal ci sa tànk dugal ci sa làmmiñ dugal say loxo lépp loo gis luy doxal lislaam tamit nga dugal sa tànk dugal ci sa loxo ma ne leen kon lii dafa wuy si li nga xamante ni wanoon nañu ko démb doog a ñëw si loolu si leen taxawalee mouvement bi di ci liggéey mu nekk mouvement politique citoyen ngir bokk ci ñi nga xamante ni ay citoyen lañ war a indi seen participation ci ab dëkk nuñ koy doxalee loolu moo tax mouvement solution Liberté Sénégal di MLS ah, ci gannaaw loolu si lañ amalee mouvement bi di ci liggéey boobu ba léegi alhamdulilah looloo tax nag ci élection yi nga xamante ni di élection euh, législative yi ñi am taxawaay buñ ci taxawee loolu moo ko waral comme nuñ ci taxawee woon si élection présidentielle yi damoon nañ ci présidentielle yi mais dañoo amoon ñu parti boo xamante ni moom lañ defoon coalisation coaliser coaliser ak moom dam si élection présidentielle yi loolu présidentielle la woon kon su présidentielle passé données yi dafay changé ci yeneen données la ñu dugg tey ci élection député lañ jëm te ne député nag ne sa gox loolu moo waral tey ñu ñun ñu taxaw fa si yéene yéen a taxawal suñu gox di département ville de Kaolack ngir nekk candidat foofu noonu indépendant pour dem assemblée nationale xeexal suñ dëkk bi nga xamante ni yelloo na am na àq ak yelleef ngir jotee ci budget bi nga xamante ni état bu Sénégal daf koy préparer mboole mu gox goxaan yi la cay Kaolack am dafa néew lay Kaolack am si recette dañ koy jël di ko génnee foofu di ko indi si trésor te loolu du yoon Kaolack ku ko xam dëkk bu manqué assainissement la dëkk bu manqué ay yoon la dëkk la boo xamante ni ndaw ya fa nekk nuñ bëree te buñ xëyee duñ am fu ñu liggéey kon loolu ñàkk am ay leader politique yoo xamante ni am nañ vision ñoom rek ñoo leen ci mën a dimbale waaye politique yi nga xamante ni ñoo fi ancien politique yi gis nañ seen yitte yëpp mooy affaire parti moo leen ñor seen affaire intérêt bopp moo leen ñor looloo tax ñu gënoon nangu soobu ci lii ngir représenter suñ gox boobu noonu di Kaolack muy lu am solo mbokku téléspectateur seen jotaay noo ko jàngatee tey nag ni ma ko waxee dañu def déplacement tey euh, ñëw fii ci siège Cheikh euh, Baye euh, Ndiaye mouvement liberté Sénégal MLS la solution ñu di ko santaat bu baax ci disponibilité bi nga xam ne tey may nañu ko Cheikh Baye mu mel ni dañuy ñëw tuuti ci élection législative yi tudd nga ko léegi muy dimanche 17 novembre 2024. naka ngeen fas yéene waaji leen en tant que yéen mouvement euh, bi nga xam ne samp ngeen ko tey seen taxawaay ci euh, élection législative yi ndax da demaat comme ni ngeen demoon comme présidentielle comme euh, coalition ou bien da ngeen fas yéene demal seen bopp. waaw nu ñu waajalee demee ko ci élection yi di législative yi yi war a am 17 novembre 2024 ni ñu ko waajalee lenn rek la mooy comme ni nga ko xamee ndaxte élection yi ci tëgg gi ñu ko tëgg ngir ñuy soobu si dafa yàkkamti dafa gaaw maanaam gars yi ñoom dañoo defaru ba pare rek sifle ne acca bisimilah waaye fekk na ñun amoon nañ sunu objectif ba pare sunu objectif lan la mooy ne kat élection yi nii ñu dem ci ci si suñ côté département de Kaolack noonu lañ ci bëgg a demee mooy ne pour defar ay liste nationale defar liste départementale temps bi muy laaj ay yitte bu muy laaj xajut fi ndax élection anticipée la léegi nag moo tax ñun ñu def candidat indépendant pour di liggéey ak yeneen coali coalition yoo xamante ni ñoom fas yéene am ay liste ci département ville de Kaolack am na nag ñu ñuy waxaat ñu ñuy waxtaan ak waaye amuguñu ñoom ak déggoo ndax nag yaa ma gën a xam politiciens yi te ñun ay ndaw lañ yoo xamante ni li ñuy dugal ci politique lu leer la li ñuy wax saay su nekk politique jaamu yàlla la politique leer la politique njub la képp koo xamante ni tegal nañu programme bu leer ñu gis si intérêt Kaolack gis su njëriñu Kaolack si kàttanu yàlla ñu nangu ñoo jël daf ñu tedd liste département incha allah dinañ jàppalante ak kooku si kàttanu yàlla su ko defee ñu dem sa assemblée nationale xeexal fa suñ gox bii da Kaolack ndax moo ñu ñor te moo ñu tax a jug ndax Kaolack limu manqué dafa bëri looloo tax ñu am objectif boobu noonu teg ko ne kat bi lañ bëgg liggéey ci élection yi nii loolu moo nekk suñu objectif ñi nga waxoon ne ay coalition coalition mais nag amaguñu déggoo loolu nag tekkiwul nag ñeneen ñi nga xamante ni ay coalition ñu ngi leen wo ku ci mel ni Pastef ku ci mel ni coalition bi euh, sàmm suñu kaddu ku ci mel ni coalition jàmm ak njëriñ bu Amadou Ba ku ci mel ni coalition APR bu président Macky Sall ndaxte lu tax ñi leen di woo liggéey bi seen liggéey la ndax ñoom li ñu bëgg a liggéeyal Sénégal jaaree ko ci député yi gisuñ département Kaolack bii nii depuis indépendance wala après indépendance nit buñ fi mën a jiital ñu ne kii ab député la lii moo ko xeexal région de Kaolack ba Kaolack am mën gis ma ko su fekkee gis ngeen ko ngeen wax ko ci président yi fi jaar yëpp Kaolack da cee perte waaye gañewu ci li Kaolack perte nag te gañewut ko moom lañ bëgg Kaolack ñëw amaat ko lay gëddam ci budget bi mu am ko incha allah taala. en tant que doomu Kaolack euh, Cheikh Baye Ndiaye euh, euh, mouvement liberté MLS Sénégal la solution mu mel ni rek ni moom lañu amal jotaay ba léegi mu nekk loo xam ni di doomu Kaolack wax dëgg yàlla ku ko xam xam yàgg na xeexal Kaolack yàgg naa bëgg Kaolack di titre li nga xam ne moo di Kaolack depuis sa jeunesse bu ñu la roon laaj sa jeunesse ba nga nekkee depuis jeune te ku la gis xam ne yàgg nga faa def ay social di yàgg def social du benn du ñaar euh, ñu xam ne ba ñu dem sax dippale la solution li ma bëgg a wax mooy depuis à bas xëy na ba nga gën a féete ndaw lan ngay joyante ba léegi loo gis ni Kaolack wax dëgg yàlla manqué na ko te boo sañoon tey boo duggee assemblée nationale loolu bokk na ci li ngay njëkk a xeex biir Kaolack wala li nga xam ne manqué na fa daal lu mu doon. li ñuy gën a manqué Kaolack gën ñoo naqari te saay su nekk ñi ciy am tiis te gisuñ benn leader politique. boo xamante ni am na capacité pour génne ci Kaolack mooy développement Kaolack te ku ne développement da nga wax développement ci économique dëkk bi da nga wax si ay infrastructure ci ay tabax yu mucc ayib ci ni ñuy canaliser dëkk bi wàllu assainissement ku ne développement tamit da nga wax ay yoon yu nit di jaar di dem te ku ne développement tamit da nga wax ay bërëb yoo xamante ni ay ndaw dinañ ko am di fa xëy jigéen ñi di fa xëy di fa mën di suturloo ku ne Kaolack gis li nga xamante ni mooy marché bi marché bu yàgg la tubaab yee ko fa indi woon boo duggee si marché Kaolack salte gim salte kenn mënu laa wax lii num tool ñàkk ay leader yu am vision moo tax loo waaye kawlak waroon na am beneen marché international ndax Kaolack soo ko xoolee si carte Sénégal bi Carrefour la amul kenn ku mën a génn frontière génn dëkk bii dama ci beneen dëkk jaaree ko ci yoonu suuf te jaaroo Kaolack kon dëkk boobu noonu li mu war a injecté wala li mu war a générer ci économie Sénégal dafa am doole loolu jëf gi ñu ko bëgg a jëfal Sénégal yëpp lañ koy jëfal président bi lañ koy jëfal képp kuy politique lañ koy jëfal ndax loolu vision ak xam-xam moo koy indi loolu nag ñun suñ demee sa assemblée national loolu lañ fa bëgg a taxaw xeexal fa Kaolack ndax Kaolack dafa manqué yii nii yëpp ma wax war naa am hôpital boo xamante ni hôpital international lay doon lum dee dee dee am nañ projet hôpital bu ñu tëkk boo xamante ni lum dee dee dee hôpital bi dina am pili de ay huit cent chambres yoo xamante ni pour accueillir malade yi ndax Kaolack boo gisee ñu jugee ko Tamba foofu lañ ñëw di fajoo ñu jugee ko Ziguinchor dañ fay ñëw di fajoo ñu jóge ko ci yeneen région yi ko jege même Gambie dañuy ñëw Kaolack di fa fajoo kon war na am hôpital international tegu ci norme boo xam norme internationale la lépp luy machine ay IRM Kaolack dafa manqué ñi ngi wax ñi nga xamante ni ñooy def dialyse manqué na fa Kaolack manqué na infrastructure bu ñu ko doon lim tey seen programme tëgg nañ ko dafa war a am hôpital international dafa war a am marché timit boo xamante ni marché international hebdomadaire la war a doon nekk centre boo xamante ni moo nekk centre li war a tëkkale wala lu war a dajale entre diggante Afrique centrale ak Afrique de l'Ouest ñëpp di war a dajaloo ci Kaolack te loolu foo ñu am benn marché boo xam marché international lay nekk loolu yëpp suñ programme la bokk si loo xamante ni suñ demee ci assemblée nationale danañ ko xeexal Kaolack beneen bi mooy li nga xamante ni Kaolack daf koy am ci budget bi nga xamante ni état bu Sénégal daf ko natt ne gox bu nekk lii lay am ci budget bi Kaolack lañ lam cay am dafa tuuti danañ ko xeex bañ yokk ko ba mu doon ay milliards yu bëri ñu investir ko Kaolack beneen bi nag mooy incha allahu taala ndaxte kat assemblée nationale buñ fa demee dafa am programme boo xamante ni moom lañ fay demee gannaaw lii ñu lim mooy ne dafa am luñ gëm ci politique premier mandat bu ñu demee si assemblée nationale mooy ne suñ salaire député duñ ko laal ah waaw dañ koy jël. dañoo bëgg a jox politiciens yi ne leen politique pour defar la waaye du pour wut ay privilège euh, Cheikh baay nga baal ma euh, boo nee tey seen salaire doo leen ko laal Cheikh Baye ñu bëri est-ce que duñu jàpp ni da ngaa dogagul assemblée nationale euh, wala da ngay xëccu assemblée rek est-ce que boo ko jotee dem ba ci biir itam loolee nga wax ne su salaire bi duma ko laal ndax loolu da nga koy dëggal. waaw loolu dañ koy dëggal ku ñu xam bañ nekkee tout tànk ba léegi kenn xamuñu suñu ñàkk fayda ak ci loo xamante ni nag su noonu. te lépp loo xamante ne lu ñuy wax la loolu lañ loolu lañ gëm te référence bi ñu wax ne mooy suñu référence ci politique di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku doy na référence ndax booba yàlla euh, tegee nattu ba ba génn ci nattu ba ni mu doon gouverner état islamique ku nekk da cee gis sa bopp ndax loolu mooy njub li tax ñuy laaj ne nañu jox yóbbu ñu sa assemblée nationale du suñ jëmm ji moo tax pour liggéeyal suñu askan moo tax te nit booy liggéeyal sa askan nag dafa war a am luy wane ne kat yow mii nii liggéeyal sa askan moo la ñor pour ñu jox exemple ñi nga xamante ne dañuy def politique te xamuñ lan mooy politique nekku ne kat soxlawuñ salaire bi ah soxla nañ ko ndax ay nitu daara lañ yaa ngi dégg daara yi yor nit ñu aju suñu loxo yi waaye dafa am exemple boo xam danañu jaral ñi sacrifié wu bàyyi loolu ngir jox askan suñu gaal ngir nit yi xam ne kat politique pour jaamu yàlla la pour liggéey la. pour defar la waaye du pour ay privilège moo tax salaire bi nañ daam dundee ba tey jamono jii nii am nañ 35 ans dund ba léegi doonuñ député doonuñ dara ñeewuñ benn député ñeewuñ ministre ñeewuñ président yàllaa ñuy dimbale di ñu suturaal si suñ juróom si suñ fukki dërëm mën nañoo dundee ci loolu loolu mun nañ cee continuer di ci dund ñu nekk député ñi ñuy fay ay salaire ay millions ak ñu jël ko daf ko si ay essence ak di def na ko sutul noonu di yaataay yu ma ñu nekkuñ ci loolu moo tax nag salaire bi ñu ne suñ demee loolu la njëkk a def dañ koy jël premier mandat bi la jël salaire bi jëbbal ko askanu sunu gaal weer bu nekk danañ jël suñu salaire ñi xaaj ko ñett xaaj benn xaaj bi dañ koy jël ñu yóbbu ko ci orphelinat yi mooy bërëb yi nga xamante ni dañ fay denc xale yi nga xamante ni ñii ay jirim lañ ñii ay baayoo lañ ñii seeni woy jur amuñu mën-mën ak kattan wala ñii seen weeni amuñ meew wala soow bu ñu nàmpalee seen doom yi ñu jël benn xaaj boobu yóbbu leen ko foofu ñu jëndal leen ci ay meew ay couche ak yi nga xamante ni dañ koy soxla ci seen dund boobu benn xaaj bi la beneen xaaj bi ñu jël ko yóbbu ko ci hôpital bu Kaolack hôpital bi mooy dañ ko fay bàyyi ndax dañoo remarqué ci yàgg daf yi ñuy def ay jëf yu baax si lañ xamee ak sunu jëmm ju xeebu jii ni gis na kat man mii jéem di daf nii kat man mi mënuma lépp ndax ku nekk war na see mën a jàpp ñii dañ lay woo di la ñaan luñ jëndee ordonnance te mu leer na la ñii di woote di ñaan loolu amuñu ko suñ ko amoon ndax ñaan nu mu méttee ak coono gu ci nekk ma ne kat naa fa bàyyi benn xaaj bi yóbbu ko si hôpital bi déposé koo fa képp koo xamante ni da nekk malaat ak foo mëntu jugee ko na nga doon doomu aadama soo ko soxlaayee nga bëgg a jënd ordinance ñi jël ci loolu jëndalee la ko ordonnance mu dugg ci loolu beneen xaaj bi du troisième xaaj bi ñu jël ko yóbbu ko nag ci daara yi ndax nag mun ñoo séddale ba pare fàtte suñ bopp ku ne daara mun naa am kat man li ma mën a am lijjanti ko si samay pexe am na ay sëriñ daara yoo xamante ni amuñ pexe boobu ndax da ngay dugg daara yoo xamante ni xale yi sax basan buñ tëdd sax duñ ko am malla yuñ tëdd duñ ko am te nag jamono buñ tool jamono développement lañ wax war na xale fu muy tëdd war na am ventilateur même sax pourquoi pas mu am climatiseur ndax kuy jàng alxuraan war naa am loolu ñu préparé ko ci ay conditions yu baax yoo xamante ni xale bi xelam dana dal mu mën a jàng mokkal aliwoom wooy jërëm kontaan ci ñoom sëriñ daara kontaan ci moom Sénégal kontaan loolu moo nekk suñu programme ne loolu la ñuy doxalee li nga xamante ne mooy suñu salaire bu ñu duggee si assemblée nationale bi. Hmm. Cheikh Baye yaakaar naa sunu laaj bu mujj rek mënuñu toog te laaj ñu la ko xam naa mooy sunu dernière euh, question Cheikh baay gis nañu coalition yi nga xam ne ñoo ngi fi taxaw tudd nga leen léegi boo xoolee Pastef moo xam coalition euh, Diomaye président wala Pastef sax euh, gis nañ ñi nga xamante ni ñoom xëy na wooteeguñ li nga xam ne moo di ànd lëngoo maanaam coalition dañoo fa seen demal seen bopp waaye gis nañ fi coalition bi nga xamante ni moom wàllu takku mu nekk li nga xam ne bu diis la sàmm sa kaddu bu diis la ak yeneen yeneen parti yoo xam ne ñoo ngi taxaw Euh, Cheikh Baye naka nga jàngee moment bi Pastef moom coalition euh, Diomaye président wala Pastef mën nañ ko wax mu ñoom seen bopp bëgg dem ak ñoom seen bopp ak moment bi législative yi nekk na li nga xamante ni ñoo ngi soog a nag accéder ci pouvoir bi euh, seen élection législative nekk lu njëkk noo leen jàngatee ñoom ndax ñoom dem bi ñu fas yéene dem en tant que ñoom loolu nekkul risque par rapport ak coalition yi nga xam ne diis nañ gan. waaw leeral rek ne ma ak waa APR ak waa Pastef woo gi leen woo man dama leen woo pour dimbale leen ngir xettali leen wax naa ko sama biir wax sànq ma ne la boo jëlee Kaolack département ville de Kaolack gisuma ku fa Pastef mën a def tête de liste département ku mooy suñ jëmm ji gisuma ko su ngeen ko gisee ngeen wax ma ko waaye man gisuma ko du ci xam-xam naw ma nag seen bopp waaye dañuy sant yàlla ci loolu amma bi ni'mati rabbika fa haddis li tax ma leen di dimbale la daloon Ablaye Wade ci département bu Kaolack laa la dawal la daloon Macky Sall si département bu Kaolack laa la ñuy dawal la daloon Abdou Diouf si département bu Kaolack laa la dawal te ba ba léegi ñoom dafa mel ni foofu lañ teg seen tànk ndax tey ngir développer Sénégal du ay yëfu parti yaa ngi wax sa biir wax ne ñoom coalisé wuñ man maa leen woo pour dimbali leen duma fëgg seen porte duma dem di taxawaalu fenn bokkuma Pastef mais dama leen woo tax xam naa ne mën naa leen a dimbale ñoom si seen projet ndax ñi ngi wax naan projet am na amut projet boobu lu koy jëmmal nag am ay député yu mat député bokk nañ ci am ay leader yu mat leader jàpp si seen projet bi dem indi ay investisseur ci seen xam-xam ci seen xalaat seen vision ñoo ngi fi loolu nag aajoowut nit ki nekk na Pastef wala jën na carte bi membre walla yooyu seen philosophie boobu noonu mënta dox senegal fii nii moo tax man dama leen a woo pour dimbali leen rawatina département de Kaolack képp kuñ fi wax wala kuñ gëmloo Ousmane Sonko ne ko diw bii nii moo téye Kaolack ñi ko wax loolu dañ koy nax képp kuñ fa jox liste ne ko kii nangam nangam moo ko fa yàgg di ko liggéeyal Ousmane ku mu war a tànn jamono jii nii mooy borom xam-xam yi mooy ñu am vision yi mooy ñu nga xamante ne dañoo nekkoon kaw la démb di ko liggéey di ay ndaw mooy MLS la solution looloo tax ñu woo ko pour dimbale ko ci su fekkee ne projet bi muy wax am na ko te bëgg na koo liggéeyal Sénégal dañ ko see woo pour dimbale ko ci ndax du ma jël numéro am di ko fëgg wala di ko woo man du daw ci gannaaw lenn dimbale ko ngir moom ndax am na loo xamante ni daf ko yenn te war naa wane résultat ñu bëgg koo dimbali si résultat boobu loolu tax ma koy woo ñi nga xamante ni mooy Macky Sall li tax ma koy woo gis nañ depuis ba mu fi nekkee 2012 ba ni muy wàccee ni amul kenn koo xamante ni si député bu mu fal département ville de Kaolack bu ko amal njëriñ kon buñ continuer di nax seen bopp ñiñ leen di wan naan ñii ñoo téye Kaolack wala ñoo nekk Kaolack amuñ vision amuñu xam-xam mën ñoo développer Kaolack te ñoom nag Kaolack daf leen a dafal tey Ousmane Sonko tey suy dem soor Kaolack lay jaar Macky Sall mii Kaolack la jàngee Kaolack da leen a dafal lu nekk Mimi Touré mii waa kawlak la kon Kaolack dañ ko war a liggéey suñ bëggee senegal développé lu leer laa leen wax te baatin laa leen wax dëkk yaramu doomu aadama xol la xol bi su baaxee yonantu bee ko xadis la ku ko weddi na nga weddi yonantu bi yonent bi dem ne am na benn lumbu ci doomu aadama su baaxee léppam baax su baaxut léppam yàqu te Kaolack nag mooy xolu Sénégal man na dama leen a bëgg dimbale si objectif bi ñu am ñoom Macky Sall ak Ousmane Sonko ak nangam ne bëgg nañ koo rattraper liggéeyal ko Sénégal ma dimbalee si leen proposer leen sunu liste candidat indépendant bi man la mën lañ jël tabbu ñu di responsable moral ngir ngir ñu représenter département ville de Kaolack te wallahi bés bu ñu demee si assemblée nationale danañ xam ne ñu fa jaaroo ñëpp si département ville de Kaolack amuñ xam-xam amuñ vision amuñ programme. Hmm. jërëjëf jërëjëf mbokku téléspectateurs yi euh, dañ koy jox kàddu gi mu tàggatoo rek Cheikh Baye euh, lan ngay tàggatoo tàggatoo kàddu gu mujj xam naa lu ñàkkaat dina am yeneen jotaay euh, noo ko jàngate waaw li ñuy tàggatoo lenn la rek mooy di santi yàlla beneen yoon waaye tamit di woo askanu sunu gaal. di leen wax ne leen occasion bi ñu am de législative yi nañ ci taxaw wane si li nga xamante ni moo ñu metti si suñ gox maa ngi ci woo waa Kaolack li nga xamante ni métti na leen ci ñàkk a bi kawlak ñàkk a développé nañ taxaw ñoom rek ñoo ko mën a dindi keneen du leen ko dindil du politicien bu jógee koo fee di leen propagande moo leen koy dindil ñoom seen bopp xam nañ seen jàngoro lan la kon saafara si mu ngi nii MLS la solution dafa ñëw ngir saafara jàngoro ji te nekkul loo xamante ne lu ñuy wax la kenn xamuñu si jaaxaan kenn xamuñu si dox naka su dul noonu képp koo xamante ni daal woo nañ la ñu ngi lay ñaan nga wuy si ñu ngir jëmmi Kaolack gi ñu ngi woo mouvement yi jeunesse bi yi nekk Kaolack ndaw ñi ñu ngi woo femmes yi ñu ngi woo ñu nekk si marché bi ñi ngi woo mbooleem association yi nga xamante ni dañoo nekk si département ville de Kaolack ne leen seen mbokk seen xarit seen doom seen jarbaat moo ngi nii tafa fas yéene taxaw ngir liggéeyal fi nga xamante ni mooy goxam bi nga xamante ni gouvernement yi fi jaar yëpp dañ ko fàtte si assainissement ci développement si économique si toppatoo ville bi nga xam mooy ville de Kaolack te fas yéene nañ taxaw bu ñu demee si assemblée nationale danañ xam ne dëgg-dëgg assemblée nationale. am na gan gu mos a am ci xeex teg ko ci xam-xam ci indi ay solution tegal ko ñi nga xamante ni mooy état bu Sénégal si kàttanu yàlla loolu kat la ñuy tàggatoo su ko defee ñu ngi leen jox dox daje wala dig daje ci yeneen jàkkaarloo ci yeneen chaîne incha allahu taala. jërëjëf euh, mbokku téléspectateurs yi ñu ngi fas yéene yëkkati jotaay bi Cheikh Baye Ndiaye mouvement liberté euh, MLS euh, la solution. nga xamee ni moom la ñu amal jotaay tey fii ci siège am lañ ko fekk cité Damel euh, muy ki nga xam ni ni ma ko waxee doomu Kaolack waaye mooy mu nekkit ki nga xamante ku yàgg xeexal Kaolack liggéeyal Kaolack waaye ku nangoo itam def social moom la ñu amal jotaay tey ñu di ko santaat bu baax a baax a baax euh, di ko gërëm itam ci disponibilité bi nga xam ni euh, may nañu ko mbokk téléspectateurs yi tey lii moo nekkoon seen jotaay noo ko jàngatee incha allah di leen joxaat dig daje ci yeneen candidat ci élection législative 2024 yi ba beneen ci wàllu micro bi Mouhamadou Lamine Mountakha